alors euh, fan yi euh, daanaka daal waa Pastef dañoo raar ci télé bi et rawatina depuis bi ñu accédé au pouvoir euh, alors que avant c'était le parti la formation politique la plus disponible mais daal dama seetlu ne gars yi bi ñu jëlee nguur bi ba tey dañoo raar surtout nag bi polémique yeeg controverse yeeg yooyu tàmbalee moi ma moi personnellement bind naa damay gis waa Pastef yi di naan euh, ndaw si opposant régime bi rek lay woon non je suis désolé les gars moi je passe mon temps à inviter man ku ma xam-xam ma ci équilibre je passe mon temps à invité les les, les membres du, du du gouvernement euh, certains nouveaux directeurs généraux nee nañu ñoom ñu wax euh, dañoo nekk ci ay audit dañu nekk di formuler les lettres de politique euh, sectorielle parce que ñoom bi ñu ñëwee daanaka euh, ñëweewuñu avec un programme de gouvernement donc dañ nekk di di defaru donc pour le moment il peuvent pas ils peuvent pas venir dans les plateaux Euh, ki nga xam ne sax euh, son invitation se justifie amplement muy le ministre de l'agriculture je lui ai fait un message il n'a jamais euh, n'a il n'a jamais répondu peut-être que c'est un mot du du du premier ministre alors ñi nga xam ne ils sont pas au gouvernement et ce sont des gens qui avaient l'habitude de venir euh, ci suñu plateau yi aussi euh, voilà à l'exception de Amadou Ba qui accepte ce soir mon invitation euh, gars yi on dirait que showuñu xam naa ñenn ñi dañuy xaar seen nomination ñenn ñi bëgguñu teel a wax on on comprend mais boo leen gisul ñu ñëw ci plateau yi xam leen ne ce n'est pas de notre faute c'est de leur faute et d'ailleurs je je je te pose la question Amadou. Mm -hmm. mais pourquoi nangootu leen ñëw ci ci yi. Euh, ni ngeen ko daan defee vous êtes un des rares ah. waaw jërëjëf may mun a loolu lu lu simple à expliquer la xam nga yéen da ngeen a accepté gul dañ ni leen ñun euh, beneen euh, doxalinu politique la ñuy indi c'est-à-dire que nome ay nit da ngeen ni fàtte je pense que on tous wala parfois ñu bëri un problème de temporalité. dafa mel ni sa régime dafay nekk depuis six mois walla huit mois alors que euh, ñu ngi dugg à peine les cinquante jours cinquante jours ñoo xam ne ñu ngi leen di soog a nommé ñu ngi soog a jël fonction contrairement à li ngay wax ci impréparation ou inexistence d'un projet boo ñëwee ci benn service ñu nome la sans jox la euh, kii mission électorale dañ la jox mission bu bees ni leen vous devez redresser secteur yi ngeen nekk loolu mooy la mission waxuñu leen kenn nommé nañ la pour nga indil ñu ay mi ay succès électoraux dans les échéances électorales futures. yéen a ngi dem RTS. xaaral ma continuer rek. di biñ leen nommé mais mais nangul ne yéen a ngi dem RTS. comme l'ancien régime. biñ leen sawar nañu ci plateau RTS là où. Euh, voilà ils estiment que ils de... sont pas en terrain risqué. yéen a ngi dem RTS non du question terrain risqué parce que lu ah. risqué amu fi. lu risqué lan moo fi risqué loo xam ni ne ñoo ñëw teew wax ko. les lu tax ngeen mën a dem RTS. mënu leen dem ci télé yi moom laa lay expliqué boo ma bàyyee les gens ont été euh, nommés pour ñu accomplir ay missions spécifique ñu ñëw fekk un pays en crise avec des secteurs yoo xamante ni boo ubbee les dossiers sérieusement li ngay def mooy imprégné wu ci dossiers wàcc sur le terrain. parce que doo yem rek juste ci présentation théorique bi ñu lay jox ñii formé guñu sax seen i cabinet ñii seen i ñi leen di accompagner seeni i collaborateurs yi euh, tout ça n'est pas encore fait ñu war a ñëw un secteur xool ko càmbar ko nga bëgg mu ñëw di wax bu ñëwee di wax qu'est-ce qu'ils vont boo woowee euh, à l'exception peut de quelques quelques yoo fi cité. mais justement j'ai précisé le ministre de l'agriculture war na mën a ñëw wax. war na mën a ñëw wax mais à priorité priorité yi mu am actuellement avec hivernage bii di ñëw avec des chantiers énormes xam nga yéen nee naa da nga fekk ñoo xam ni ils ont trouvé un pays en crise dans tous les secteurs mu war a ñëw lijjanti engrais yi gestion wu engrais yi mais tout ça ne pas encore fait mu ngi ci terrain bi di ko concrétiser chaque jour moom ak ñi si des ku nekk ci ñoom yaa ngi jël sa secteur parce que tu as des délais très courts pour maîtriser indi de nouvelles orientations parce que dañoo war a indi de nouvelles orientations bul fàtte ni ñun yoruñu assemblée nationale bu ànd ak ñun dañoo trouver un budget boo xam ni dañ koy exécuter il est en cours d'exécution budget bi voté wuñu ko amuñu assemblée nationale donc ñoom préparation boobu ñu nekk te amuñu mission électorale moo tax da leen di may tuuti. waaw je peux excuser xaw la man sax. da nga leen di may tuuti ñu jël en charge. man sax mën naa leen comprendre ñuy dem RTS amul problème mën naa comprendre yenn ministres yi. ñuy dem mais yéen ñeneen ñi nga xam ne nekku leen ci gouvernement euh, yéen a ngi ci parti bi mais pourquoi vous vous vous vous hésitez à à à à déférer aux convocations des des médias amu fi encore une fois danga woo ay nit ñoo xam ni ils viennent d'arriver ñoom ils ont été nommés ñii y a jours. koo nommé 30 jours boo ñëwee lan nga koy waxal. non waxatuma ministre yi. non naa même ñun soo ñu woowee c'est pas seulement le gouvernement mm-hmm. les directions léegi ñi nga xam ni nee naa la ils sont en de faire la revue secteur bi revue total général globale secteur bi pour xam nan lañ koy yéen nouvelles orientations yi ñu leen jox nan lañ koy matérialiser. ñoom bu ñu amul jot ñëw toog wax parce que le travail se fait sur le terrain et il y des urgences qui ne peuvent pas attendre. politique nekkul juste nga ñëw di wax loo defagul on se qu'ils ont des résultats ñun approche bu bees bi ñu indi on ne fuit pas les médias quel lentere de fuir les médias. pour le moment da ngeen di daw de. non dawuñu c'est le travail c'est que li ngeen tàmmoon. ñenn ñi kontaanuñu ñenn ñi ñu ngi xaar. ñu matérialiser promesse bi ñu leen def. <laughs> Euh, voilà ñenn ñenn ñi ñu wax. di nga may léegi kan nga xam. parce que il faut munoo lancer loolu tamit. comme ça kan moo man de dama ne ñenn ñi kontaan non ñenn ñi mooy kan wax ci kenn. du ma wax turu kenn. non non mais defal nga. du wax seen tur da ngaa invité da kenn mu ne la suis pas content parce que no wuñu ma du ma ñëw wax. non non non non on me le dit pas comme ça. voilà mais on on pas comme ça on me le dit pas comme ça pas autrement xam nga nee naa la. <laughs> c'est une nouvelle il faut vous adapter à cette nouvelle manière de faire de la politique. mooy doo wax pour wax da ngay wax quand c'est utile. da ngay wax pour vulgariser un programme boo lancé mais boobu da ngay maîtriser l'ensemble des données